benn waay la boo xam ne dafa mën a aña man a añ ba nga xamee su ne bii nii seen waa kër bañ demee ba xam ne mënuñu koo añal dañ ne ko dootoo aña ci kër gi saa yu añ jotee dañ koy jox xaalis ne ko demal nga jënd mbiskit nga lekk ndax yow kenn mënu laa añal boo añandoog nit ñi ci kër gi kenn du suur kon del jënd mbiskit ngay añ léegi nag muy def moom itam saa yu añ jotee mu dem jënd mbiskit daat koy añee di ko def di ko def ba benn bis borom bitig bi nga xamante ne bii nii moom mooy jaay mbiskit bi daan ne ko yow damaa seetlu ne heure añ rek ngay ñëw fii di jënd mbiskit xanaa doo añ seen kër mu ne ko ankay suñ kër bëgg naa fa sax waaye suñu waa kër ñoo nanguwul ma fay añee ne ko ah seen waa kër daal ñoo soxal rek ne ko mbiskit ko ah non garaawul bàyyi rek garaawul bàyyi may añee mbiskit bi rek mu ne ko déedéet ñun ñëpp ñoo bokk ca ko bokkulu lekk bokku leen dara donc del kaay di añ léegi mu ne ko waaw baax na léegi nag bis bi muy njëkk a dem di añi ba mu demee ñu teg añ bi taaj raxasu mi ñu ne ko acca raxasul ba mu demee raxasu daal wiccax loxo yi raxasu mi dafa jeex tàkk mu sukk añ bi jot mu daal di dugal jaay yëpp dugal seen loxo dank seex moom mu dugal loxoom laal bëggëj bi teg ci kanamam laal suul bi teg ci xët ñàmbi bi mu xaaj mu teg ci kanamam jël karoot bi xaaj ci digg bi teg laal li jën wi teg ci kanamam boole bëggëj beeg suul beeg jën beeg karoot bi yépp daal di écarter bool bi nag xaaj ko ci digg bi dànk ba dankee bool bi daal di xaaj mu daal di tegaat boolewaat ci xooñ continuer ab dankam borom bëtig bi ne ko eh tegal tegal tegal dank bi mu ne ko ah mu ne ko tegal tegal mu teg mu ne ko wëril ma jaay la mbiskit nga dem lii tax mënoo añee seen kër kenn mënu laa añal benn paa la woon paa bi nag daa bëgg soom bi bëgg soom bay bëgg de ñu koy tabaxloo quatrième étage ñu ne ko ñaata lañ lay fay mu ne kopp soom bi rek ngeen may fay léegi mu tabax quatrième étage ba pare ñu jox ko kopp soom bi mu jógee ci kaw quatrième étage bi daan ci suuf léegi nit ñi naan ko mbaa gaañu woo mbaa gaañu mu ne comme kopp fonde bi tuuruwul rek alhamdulilah. ñoo ko déggandoo maire bi daa xiif soble la day ñaan soble dem ba si restaurant ñaanoo dara di ñaan soble waaw lii it lu bees tàq la muy kaay lépp kaay lépp doon koy tàmbali ci seen bi nee naa leen kàddu oo muy première scène 100 pour cent dessin animé au Sénégal waaw scène bi moom Mickey rek kaf rey moo ko tax a jóg. waaw léegi numéro téléphone bi ngeen di jël whatsapp la képp ku am sa lépp boo xam ni saa yoo xalaatee ree ba tëdd si suuf lépp bi bu ko jënt yow kese partagé ko ñun ñëpp ñu bokk si waaw ko waaw vocal ko vocal bu set bu leer ñu nit ñi partagé ko ñun ñëpp. ñu tëddandoo suuf ree rek ba xalangu